comme niñ koy defee at bu jot croix day taxaw ci wetu santé buñ ne ci wetu santé nag mooy euh, ci wetu district sanitaire wetu euh, région médicale ba tax na bi ñu defaree defee CRD yi ba pare ba joxe recommandation yi ak grande ligne yi euh, daje nañ région médicale en réunion technique def orientation teg dispositif bi biñ fa jógee it daje nañ dans un cadre beaucoup plus restreint euh, district sanitaire bu Kaolack comme ñoom ñooy niveau opérationnel foofu it daje nañ fa pour euh, def mise à niveau xool service bu ne ak acteur bu ne lan la war liggéey ci gàmmu bi loolu bañ fa jógee nag la ñu préparé wu ñun Croix-Rouge pour participer activement et efficacement auprès des pouvoir publics euh, que sont euh, la santé et tout ce qui gravite autour de la santé loolu moo waral tey euh, niñ ko gisee nañ ne depuis samedi euh, dispositif bi mettre nañ ko en place depuis vendredi parce que dafa amoon juli juma dépêché woon nañ keroog une plus de deux cents éléments ñu dem ci gàmm ci jumaa ji ñoo doon def di distribution de masque avec euh, l'appui du SENEPS ak euh, di district sanitaire de Kaolack bi ñu joxoon masque vraiment keroog pèlerin yëpp ku ci ne bala ngay dugg ci jumaa ji jox nañ la gel jox la masque ça c'était le vendredi le samedi ñu continuer dispositif en commençant par appuyer l'hôpital régional de Kaolack avec huit éléments vingt quatre heures sur vingt quatre à tour de rôle mouvement rotatif donc hôpital depuis samedi ñu ngi leen ay assister au CAU au SAU pour ñu mun a euh, prendre en charge donc problème yi nga xamante ne moom la hôpital di dajel euh, démb nag ci la le vrai dispositif la mettre sur place créer d'abord un poste de commandement avancé PCA euh, ñoom moom moo nekk fii lycée Valdiodio Ndiaye tey ci suba toutes les équipes qui étaient choisies donc dans le cadre de la couverture ku ci ne dem nga rejoindre sa poste respectif euh, ñi foofu ñu xam le rek ne euh, euh, au niveau de Kaolack en dehors médina Baye dañoo am treize autres sites yoo xam ne dañ ko gérer yoo xam ne ay familles religieuses lañ dañ fa war a yóbbu ay éléments Croix-Rouge ñu représenter foofu santé même si ñaapaa un, euh, un dispositif euh, de prise en charge ou de consultation obligatoirement Croix-Rouge def fay nekk pour bu problème amee que mu def appel ñu mun a procéder à à des évacuations parce que la référence fait partie des soins bi ñu defee loolu nag tey présentement tous les sites ont été donc dotés d'équipes de secouristes euh, ba ñu ngi sur le terrain Euh, ñu ngi installé en même temps les postes de commandement yi nga xamante ne ñoo war a am ci foofu comme Ndorong euh, Léona Niassène et cetera buñ ko defee nag couverture bi vraiment commencé na au niveau de Medina Baye dañoo adopté donc benn système boo xam ne comme affluence bi toujours ci ci kër chef religieux yi lay lay gën a am waa doomi Baye yi euh, chaque maison dañ fa envoyé une équipe de secouristes boo xam ne dañuy distribuer masque en même temps gérer la couverture médicale mais comme ni ma ko waxee cas bu ñu fa gis aussi dañuy woote bu ambulance mu ne dem dem parce que euh, surtout à dina Baye y beaucoup de postes yoo xam ne créé nañ ko foofu yoo xam ne ay organisme comme Croix-Rouge ñoom ñoo ko gérer bu ñu évacuer foofu baax na ñu bu ñu defee prise en charge bu waree jéggi dayoo danañ jël seen décision parce que y des médecins y des infirmiers yoo xam ne dinañ mu a agir donc pour que dispositif bi nekk chaîne boo xam ne du daggee fenn. Euh, foofu nag vraiment dinañ ci remercier euh, le comité national la Croix-Rouge sénégalaise la présidente nationale keroog lu ne la def. Elle a tout fait pour que Kaolack soit assuré donc pour que Kaolack oto mun faa dem ñu assurer couverture bi d'une manière correcte avec un appui vraiment consistant loolu présidente nationale def na ko compte de l'ampleur ak compte fi mu teg couverture bi ak euh, ressources yi ñu am euh, permettre nañ ñu daal ñu mun a liggéey bu baax a baax. ñaata euh, fi mu ne nii éléments on n'a pas encore effectivement le chiffre exact parce que bu ñu defee le tour parce que xam nga boo defee dispositif ba pare ba def affectation yi il peut y avoir yoo xam ne à la dernière minute la ñuy absenté euh, moo tax pour donner exactement le chiffre ça peut être donc impossible mais euh, en tout cas. plus de plus de deux cents normalement war nañ nekk sur le terrain pour ne pas donc euh, exagérer on peut dire donc que plus de deux cents et plus de deux cents ça peut aller jusqu'à on dit plus de deux cents donc euh, euh, beneen beneen affaire bi mooy comme ni ko waxee Covid oblige vraiment on a assez de masques parce que le district sanitaire de Kaolack avec la commission euh, Euh, du Gamou Komaf vraiment démb jox nañ ñu cinquante cartons de de masques muy cinq mille masques ba tax na c'était pour Medina Baye mais profitoo nañ ci ba site bu quatorze sites yi ñu wax yëpp am masque pour que secouriste ya fa nekk mun di distribuer masque comme on le fait à Medina Baye am na également une équipe de quinze personnes yoo xam ne dañoo intégré euh, euh, le programme RLF rétablissement des liens familiaux ñu ngi ko bokk ak plan moo ak inspection régionale de l'éducation surveillée euh, ak IMCA ñoom ñoo gérer xale yi nga xamante ne dañuy séparé ak seen parent ñu nga ca jumaa ja demb ci suba bi ñu jotee masque yi également jox nañ leen ci bu baax a baax pour que képp ku ñëw di xool xale seet ndax foofu la nekk ñu fexe nga takk masque bala ngay dugg ci biir tant bi loolu également def nañ ko euh, à l'hôpital également dote nañ les secouristes qui sont là pour kuy dugg hôpital rek nañ ko jox masque jusqu'au SAU médecin ya ma fa fekkoon jox naa leen ay masque donc vraiment le district nous a permis de pouvoir donc euh, gérer la situation par rapport à la distribution de masques euh, li ci des nag moom c'est la population parce que sensibiliser joxe masque nga mun mais après maintenant kooku la muy def à la suite ça peut nu peut nous donc indifférents mais masque moom euh, oto bii nii taxaw nii dafa fees del dafa war a déparaat pour dem vers vers euh, Saara et cetera gamo yi am foofu ba fële Daaru Ridwaan pour mu doter équipe ya fa nekk de masque pour que daal tous les pèlerins ku ci ne mun a am sa masque. vraiment donc voilà en un donc euh, toutes les dispositions qui ont été prises pour un bon déroulement donc de l'événement voilà donc euh, vraiment di gërëm l'équipe bi nga xamante ne ñoom ñoo diriger lii. c'est-à-dire la gestion, le secrétaire général avec ses collaborateurs, euh, directeur de la jeunesse, commissaire secourisme jeunesse, euh, ñoom ñëpp ak le staff tout le monde est là la cuisine vraiment euh, dinañ gërëm également xalif bi parce que ñaari at yi passé daaw ak ren vraiment amatuñ problème restauration biñ doon am toujours waaw parce que def ñuy jox nag jox ñu ceeb vraiment docteur Diop aussi il nous a beaucoup appuyé pour ñu mun a togg loolu daal xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii de war a def renfort pour que ñu mun a lekk ba suur bala ñuy jóge fii pour di dem yeneen site voilà donc euh, en un mot mun nañ jeexal nag te remercier wuñ euh, le département sœur suñu département frère fokk ñu remercier ko muy le département de Mbaké, qui, qui, est en appui avec euh, un effectif très important composé de beaucoup d'éléments qui sont donc euh, qualifiés, surtout en soins de santé primaire. Cela nous a permis vraiment de pouvoir appuyer le district en infirmier au niveau des postes de, euh, yi nga euh, des PMA, on craignait au niveau des chefs en dehors de Medina Baye. loolu vraiment laa ne woon danaa ko souligner gërëm leen également vingt huit promo donc euh, les Baba Cheikh Tidiane Ndour le trésorier mu ngi ravitailler en carburant mu ngi ravitailler en achat de légumes pour que lépp situation bi jaar yoon vraiment je remercie tout le monde euh, remercie également le chauffeur bi nga xamante ne moo jóge Dakar Matar Diagne Euh, il se donne corps et âme xam nga nag munoon na nekk chauffeur dawal rek toog ci oto bi boo ko ne nañ dem mun a acca taxawal mu taxaw mais bu yeggee mooy njëkk a wàcc jàpp ci bagage yi roñ yenu vraiment ça c'est important parce que da ko dund daal c'est c'est quelqu'un qui est dans nous waaw wax naa léegi nag le xalif lim ñu defal yëpp euh, lim defal yëpp boo ko gisee vraiment nañ ci gërëm Seynabou Fall c'est la responsable des des femmes volontaires moom moo nekk suñ digganteek sëriñ bi bu demee rek vraiment y a pas de problème dañuy dal di euh, ko jox considération bi liñ fay am yëpp ñu am ko donc euh, bu vraiment toutes nos félicitations waaw léegi daal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp